jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si li nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara ni koy baaxu ji defee fajaru vendredi mooy ànd ak yéen ci ilallahi ibadallah ilallahi di ay jataay yoo xam ne ñu ngi koy def ci Euh, xam-xam bi ñu tuddee xam-xamu suluk wala ci beneen terme bi xam-xamu tasawuf walla ci beneen terme xam-xamu tarbiya wala xam-xamu taskiya ñu ñëwoon ba toll ci nit ki ki bëgg a dem ci boroomam subhaanahu wa ba nga xam ni ay kayitam leer na am na passeport am na passeport te mooy mi ngi ba bokk ci lazina an'amta alayhim am na wér yaram ba bokkul ci almaxdubu alayhim am na visa bokk ba bokkul ci addaalluun bi mu depare di dem nag maanaam am na yaxasa mooy yeewoona fi mu nekkoon ba xam li ko tax a ñëw àdduna muy alfikra am na albasira te mooy fi muy teg tànkam buy dem am na alazm te mooy dogu na fas yéenee dem muy def nag lu ñu tuddee almuhaasaba te mooy muy auditer boppam auditer boppam tey xayma ay jéegoom daaw ak ren lu ma fi dox wuti yàlla lan laa fi def yan jëf laa fi jëf ci lay ñëw ci tomb bi ñu toll nag muy at tawba at tawba te mooy bi mu audité boppam gis nay manqué manqué mën naa am gis na fi jëf yoo xam ne yàlla taxut muy tuub yooyee tuub nag ci la tolloon kon maanaam regretté lu tax def ma nangam lu tax ma doon def nangam buntu boobu professeur man leen ubbi woon a di gis ne taw taw ba muy tuub lu munta ñàkk la alxuraan wax na ko ci ay barab yu bari waaw ba noppi tëkku ñi dul tuub mu tuub bu nu juumee jaxase jox nit lu yàlla yayoo walla leneen ñu tuub bu ñu defee bakkar yu mag ñu tuub bu ñu nëbbee lu ñu war a feeñal ñu tuub te xam ne tuub lu baax la alxuraan a ko junju yàlla wax lam dencal ñey tuub gisoon nañu tuubu yonent yi alimu salaatu wassalaam ba tolloon ci nag at tawbatu fi sunna annabawiya muy tuub ci sunna si yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom daana wax ne dee leen tuub ndax man mii seen kilifa maa ngi tuub loolu daan wax dee leen tuub ndax man mii seen kilifa maa ngi tuub mu ne man mii seen kilifa te yàlla joxoñ ma ne ma jéggal na ma samay bàkkaar lu jiitu may nekkub yonent jéggal na ma samay bàkkaar bi ma nekkee yonent li yaxfira laka allahu ma taqaddama min zambik wa ma taaxar mu ah, mu ne man mii téeméer yoon laay tuub par bés waaw mi amar laay tuub par bés waaw yéen ñi nga xam ne nag kenn waxu leen li yaxfira laka law maa taqaddama sama maa taaxar ah, kon tuub ga war naa bëri tuub ga war naa bëri moo tax ñu jële ci abu muusa al ashari radiallahu taala anhu ne yonente ba nee na yàlla subhaanahu wa fu mu toll ma ngay tàllal loxoom su jant bi soo mu tàllal loxoom moom sunu borom yéen ñi may yendoom mooy teg leen seen loxo fii te dellu ginnaaw lisaan yéen ñi ma def lu ma neexut teg leen fii seen loxo te bàyyi ko tàllal loxo ba rek yabsutu yadahu bi leyli li yatuuba na nahaari waaw ñu defan ci bëccëg bi lu ko neexul mu ne teg leen fii seen loxo ndeysaan ah bu jant bi sooyee bët set jant bi ne tëll mu tàllati loxo ba yéen ñi ma def biig lu ma neexul teg leen fii seen loxo te bàyyi ko loolu nag du ko bàyyi mukk bu set su bëccëgee mu def bii bu guddee mu def bii ba baa addunay tukki jant bi fenk fii ci wakaam li feeg loolu amul rek tabarkal rawahu muslim wan nasaa'i cëy nee na leen tuub dee tuub mu ne su ngeen tooñoon tooñ gu toll toll ba agg ca jant wa ngeen tuub yàlla mën na leen a jéggal maanaam bàkkaar bu rëy bu yàlla munta jéggale amut bam ne du ko jéggale ak tooñ lay tekki mooy sirk moo tax luwaay man ci mooy ko na ko def tuub na ku rëy mënu ko kuy jomm mënu ko mukk kuy xool ci nit ñi ak lañ lay wax après mënu ko ma ngay wax ci hadiisu jaabir ba ba tey ci tuub jaabir mu ne dafa dégg yonente ba naan min saadatil mar'i an yatula umru wa yarsaqu llahu al inaaba mu ne bokk na ci texeeg nit am sens mooy yàgg fi yàgg fi ba yàlla wërsëgal ko mu dëpp waaw fi ba yàlla wërsëgal ko mu dëpp ndax am na ñoo xam ne yàlla daf leen di may sens ñu mën a dëpp xaaj Ibrahima Sakho moo ko doon wax mu ne ndaxte bi la fi koor gi fekkee daaw yàlla bàyyi la fi ba mu fekk la fi ren dafa am lu mu bëgg ci yow ne su fekkoon bëggu ci yi balaa koor gee dil si rekk tabarkalla mu def la lim lay def waaw waaw mu ngoog waaye bu la bàyyee ba koor gi ñëwaat te moom mooy rauf mooy rahim tax wala mooy xafuuru mooy boo ci jël baax na bàyyi googum la fi bàyyi ba koor gi fekkaat la fi ab occasion la bu la jox moo tax addis bi ne min saadatil mar'i an yatula umru wa yarsuquhu llahu al inaba waaw bokk na ci am sens nga yàgg fi ndeysaan waaw yàgg fi ba mu yàgg nga dëpp bu dee mburum làmb mu tekki ngemb la waaw bu dee footballeur mu teg fa bal ba bu dee fecckat mu mu mu wéer pooj ba ndeysaan allahu akbar naa bu kurus ga dellu ca jàkka ja dugg ca paayaa ko xaftaanam ci allahu akbar waaw waaw yàlla di ko defal góor ñi di ko defal jigéen ñi moo tax kon sens la ci mu bàyyi la fi waaye léeg-léeg mu bàyyi la fi keneen ki nga xam ne moom tam mu ngi ci penc mi ñu ko seytaan fexe laa téye ca yëf ya booy bëgg a génn rek mun laa teel na sawaay booy bëgg a génn rek mun la teel na waaw nam doon def nam doon def firaw na ba mu xëy dugg ca ca ca géej ga waaw firaw na su xëyee rek gis ñiy topp Moussa di gën a yokk rek mu naa ah, lii day niru na dëgg de man ne ko waaw yow tam bu fi de ko ne sox mi ci bàllagu barke ji mi ñaane yow mi ngi xam ne yaay nangam rekk rek ndeysaan firaw na toogaat ba ni mu xëy dugg ca ndox te garab ba muy xëy di dugg ca ndox ma bu ko xeemaana bàyyi woon a xalaati boppam du dem mukk waaye tabarkàlla moo ne ko kii de jaxase dëkk bi def fi yim fi def dem dem nii rek bàyyi nag sunu mer loolu de moom man de su doon président du ma ko seetaan rek firaaw na jóg takk bagage topp ca waaw mbokk yi bokk na ci tuub ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadiisu abu saidin al xudri radiallahu anhu mu ne yonent ba nee na mathalul mu'min wa mathalul iman ka mathalil faras waaw mu fi axiyati fi axiyati yaxuulu suma yarji ilaa axiyati waaw nee na moom yonent bi salaam ci abu saïd al xudri nee jullit mook imaan niñ mel mook aw fas ca wudd ba ñoo niroo mook aw fas ca wudd ba ñoo niroo mu fas ci wudd bi buñ ko yeewee maanaam fas gu ñu yeew fi ñu ko yeew loolu ñuy yor fas xam nañ ko danga gis fas wa dem waaye bu demee it day dir si waaw nee na jullit noonu la mel mook tuub waaw su duggee ci warta dugg bu ko yëgee rekk ñibbi si laxasaay ndiggam fas yéene duutu ca dellu mu ne jullit day juum léeg-léeg daal dellu siwaat mu ne kon nag lii mooy gàllaaj gi fa atimu taamakum al atqiya akbar ha wa ulu maarufakum al aw wa awilu maarufakum al mu ne jullit bu juumee day dellusi ne gàllaaj gi yii la de leen jox seeni ñam ñu ragal yàlla de leen jox seenu ñam ñu ragal yàlla hadis boobu sunu génn góor bu sañcoon fële ca daaru gay samp fa daara ñu ko daan wax alaaji ahmadu gay te dëkkoon fii ci yaraax góor googu ku déggoon addis bii la fa atimu taamakumul atqiya waaw ku déggoon addis bii la déggoon na ko ndax comme yaakaar ci yow loolu jaral na ko wutal la soldu cinq cent mille par weer nga ne ko lu xew mu ne samay tuyaaba def ma doyut ma bëgg bokk ak diw mii ay tuyaabaam ndax yonent bi nee na ko defal nit nàngam danga am ci tuyaabaam te doo wàññi ci tuyaabaam doo wàññi ci say tuyaaba moo tax loolu list la ci yoroon listu ay imaam ak i ustaas ak i sëriñ maanaam listu ñi bëgg a bokkal wërsëgam ñi ci gën a néew la daanañ am deux cent mille jàpp trois cent mille fa at imu taamakumul atqiya yonent ba nee na kon bu ngeen bëggee tuub ga jaar ci yoon bu ngeen bëggee am sens seenu ñam na ko ñi ragal yàllay lekk ñu ne waaw mu ne na jël seen njëkk teg ci loxoy ñi gëm na jël seen njëkk teg ci loxoy ñi gëm loolu moo waraloon sunu mag ñi ubbi ay bunt yu am solo muy bunti addiya nga fexe ba sa ñaq wi ñi baax bokk kook yow allahu akbar waaw nga fexe ba sa ñaq wi ñu baax bokk kook yow fa atimu taamakumul atqiya awilu maarufakumul muminin aw kama xaala oustaz Cheikh Tandian kon gis nga sallallahu alayhi wa mi ngi ci tuub di buntu ba am solo ñu jëlewaat ci anas radiallahu anhu mu ne yonente ba daana wax ne kullu bnu aadama xataa wa xayrul xataaina tawaabuun nee na doom aadama yépp ay juum ki gën ci ki ñiy juum nag moo ñiy tuub waaw hmm? waaw kullu bnu aadama xataa wa xayrul xataa'iina tawwaabuun doomu aadama ñépp ay juum nag boo ko waxee nii ñépp a ci d'accord waaye boo ne woon diw <laughs> waaw rekk ñépp ni déedéet te bi nga ne doomu aadama ñépp ay doomu aadama yépp a ci dugg waaye boo ne woon teqet kenn joxoñ ko ne diw sax rekk tabarkàlla ñol ñol ja tàmbali waaw doomu aadama ñéppay juum ndax doomu aadama mooy doomu aadama waaw doomu aadama mooy doomu aadama moo tax ñéppay juum wa xayrul xataa'iina tawaabuun ñi gën ci ñuy juum nag moo ñiy dellu ginnaaw rëccu wala ñu dellu ginnaaw tuub loolu hadiisu anas la ba tey ci buntu tuub boobu ilallaahi ibaadallah hmm? yonente bi alayhi abu hurayrata mu ne inna abdan asaaba damba fa qaala ya rabbi inni aznabtu damban faxfir faxfiru fa xafara lahu rabbu nee na ji daa def bàkkaar ne sunu borom def naa bàkkaar de jéggal ma mu jéggal ko jéggal ma nee na mu jéggal ko fa xaala lahu rabbuhu boromam ne ko alima abdi inna lahu rabban yaxfiru zamb wa yaxudu bi fa xafara la yàlla nee li ko ci neex mooy li jaam bi xam ne am na boroomam buy jéggale bàkkaar ak itam di duma nit ci bàkkaar moom jaam mu ñëw sukk ne ko jëggal ma yàlla sunu borom ne na jëggal na ko jaam bi toogaatub diir daal di bàkkaaraat beneen bàkkaar fa qaala yaa rabbi inni aznabtu zanban axara faxfir lii yàlla man bakkaaraat naa jëggal ma sunu borom subhaanahu wa taala daal ne alima abdi anna lahu rabban yaxfiru damb wa yaxutu bi fa xafara la mu ne sama jaam bi xam na ne am na boroom bu jéggale bàkkaar ba mu jéggalu ko mu ne jéggal naa ko hmm? mu neeti rabbi inni aznabtu zanban aaxar bàkkaaraat naa muy ñetteelu yoon fa qaala yaa rabbi inni asnabtu danban faghfir li qaala rabbuhu alima abdi anna lahu rabban yaghfiru danba wa yaxudu bihi fa xafara la sunu borom teg ci ne xafartu li abdi fal yaamal maa shaa xafartu li abdi fal yaamal maa shaa loolu yàlla xam lam ci nam waaye maadaama kullama aznaba zanban istaxfara wa taaba minhu wa lam yaud ilayhi bi dalili qawlihi summa asaaba zanban axar falyafal ida kaana haada dabuhu ma shaa maanaam daal waa ji borom bi subhaanahu wa taala su waa ji ñëwee ne bàkkaar naa rek sunu borom ne jéggal naa su waa ji ne bàkkaar naa sunu borom ne jéggal na kon loolu li muy tekki rek du dara dul yàlla ko mën a jéggale la yàlla nu jéggal sunuy bàkkaar te nu bañ di ko barile góor-góorlu ba duñ ko am loolu sax mooy la gën waaw góor-góorlu ba duñ ko am mu nga Ibnu Abbas mi ngi nettali mu ne Xuraysh dana ma sax yonent bi alayhi salaatu salaam ud'u lana rabbaka yaj'al lana safa dhahaba fa in asbaha dhahaban ittaba'naaka ñu ne ñu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanal ñu sa boroom mu defal ñu safa mu nekk or doju safaa woowu mu nekk or soo ñaanee ba safa nekk or kon daañu la topp yonent bi alayhi salaatu salaam daal di ñaan boroomam jibril ni cëpp ne ko inna rabbaka yuqri'uka salaam wa yaqul lak in shi'ta asbaha lahum safa zahaba waaw fa man kafara minhum ah azabtuhu azaban laa uazibu ahadan min alaalamina waaw yonent bi bi muy ñaan jibril ni cëpp ne ko sa boroom nee na waa Quraysh ñu ngi lay bëgg wàcc loolu logique ñu ngi may bëgg wàcc loolu logique mooy sama logique du nga taxaw ne yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma safaa or may may soppali montagne yi or loolu du sama logique mën naa ko nag waaye su ma ko defee su ma ko defee dana leen jural duma yoo xam ne musuma koo duma nit dana leen jural duma yoo xam ne musuma koo duma nit léegi nag ah wa in shi'ta fataxtu lahum baaba tawba wa rahma bu la neexee nag mu ubbi leen buntub tuub ak buntub yërmande yonent bi daal ne kon baaba tawba wa rahma laay tànn buntu tuub ak buntu yërmande laay tànn moo ma gënal fi ñu ma bëgg a dugal. mbokk yi jërë jëf ci ànd beeg su seen rajo ak seen for yëkkatee jotaay bi ndax suñu mbokk yi ci xibaar yi ñu ngi leen tax yor seeni kayit këyit bëgg leen fi ñu fàncal xibaar toi fi ñu fàncaloon ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor bi C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara.